bismillaahi rahmaani rahiim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim mbokku jullit yi mbokku Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar seen mbokku imaam Cheikh Mouhamadou Bamba Sall moo leen di nuyu te di leen ziar di nuyu mboolem kilifa diine yi ci réew mi rawatina kilifa muqaddam yi ci tarixa bi yëpp di leen ziar ñoo ngi leen di maa ngi leen di yëgal itam burdu bi nga xam ne ak gàmm gi nga xam ne at mu jël ñu def ko te bi ma sancee Yoff Tongoor ba léegi ma di ko def te ndigal la ma jëlee ko woon ndigal la mu jóge woon ci suñu maam maam Mouhamadou Bamba Sall di wàcc ba ci samay waajur ñu jox ñu ndigalul bur de ma di ko doxal famille bi yëpp tiñ di ko doxal fu ñu mën a ne bi ma ñibbisee Yoff it bi ma taxu see Yoff it ma di ko def loolu laay yeesal ne fas nañ ko yéene def di ko yëgal suñu kilifa ya ne ca Saalum di ko yëgal kilifa tarixe yi yëpp di gën a yeesal itam suñu wasiila ci Seydi Aji Malick mi nga xam ne mooy wasi suñu wasila ci tarixa bi di leen yëgal ne fas nañ ko yéene